73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñee nee góor tax aljuma fukki fa ak ñeent ci weeru octobre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës mbirum Kalifone ak Adja Thiaré Diaw ga nga xam ni yoon démb la ca jël ndogal ca tribunalu Ndakaaru ba teg daan ndawi Macky Sall gi kii di Adja Thiaré Diaw génn na l'hôpital dañu leen dikkal ci ñaari responsable benn Bokk Yaakaar ya ab coro gu ñu bokkoon filmé di leen laaj koppar ba yoonam ca wàll yoon teg na loxo ni ki bés yi ñu génn geneen ndawi Pastef gu ñu ni ay kaddu la doon jokk procureur de la République jaarale fësal danañu leen faram fàcceel ci digg xibaar yi naka la Anta Seck doon dugalee drogue ca salon moom féetee ca Yoff daan ca liggéey tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen taaxirluwaas lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu nga ak euh, bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Sunugal 24 dal leen jàmm ci xibaar yi euh, Kaliphone démb ci alxamis gi la ko yoon teg daanu juróom benn weer yu muy tëdd benn weer ya ak téeméeri junni yu muy fay Adja Thiaré jaw ñeel coups et blessures volontaires waaye moom Adja Thiaré teeweewul audience ga ba ñu yàttee Kaliphone ma nga woon l'hôpital principal Les Échos moo di ñu xamal ni mujj na ñibbi këram euh, journal bi wéyal naan ay avocat wu Adja Thiaré Diaw danañu laaj médecin yi faj seen client aljuma la ñuy yónnee correspondance ci wàllu woowule euh, bu ñu leen leeralee rek ci li euh, da doon tuumaal Kaliphone ci mbirum viol waaye tribunal ga dafa dàkkoon démb gi la tribunal d'instance su Mbàkke doonaate coowal soxna sañu joxoon may gu njëkk ba noppi mu bañ du tëdd ak borom këram moom Fatou Thioune ak yaayam Awa Bey dañuy desandi kaso ndax dañu dàkkaat seen àtte ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre seen waa kër delloo nañu Modou cent mille ci procès ga Fatou Thioune ba ñu ko laajee ci mbir mi dafa ni borom këram du góor ndax jéem na ñetti yoon sottiwul ci la nee du toog ak moom magistrat bi xamal ko ni du dëgg ndax waxu loon loolu ci l'enquête yu njëkk ya Modou nee na goroom bi 400000 la ko laajoon mu joxaat leen 115000 yu jëm ci wàllum tissu yi téléphone bu 80000 160000 yu jëm jàkka ja 50000 ñeel location mu bâche yi bëy bu soixante quinze mille euh, teg si nee na gune gu jigéen gi dafa am keneen ku muy nekkal euh, mbirum euh, viol la ñuy waxtaane ca boo maraîcher bu Pikine ab agent wu quarante deuxième promo wu agent de police dit élément wu compagnie de surveillance et d' intervention la benn gune gu jigéen gu am fukki at ak juróom benn di tuumal ni da koo sàkku yëf yaa nga amoon bésu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre booba ay vingt une heure jotoon takk der bi dafa seenoon benn couple ñuy lu ñaaw ci mbedd jubal sa ñoom ba ko ku góor ki sentiré muy ñëw nag mu daal daw ba fa gune gu jigéen gi xale bi ba mu demee police mu ni policier bi da koo sàkku mu di du takk der bi weddi ba mu set waaye loolee dafa jaaxal l'enquêteur ndax seen naataango bi defalul benn yoon supérieur am compte rendu euh, na mu waree l'enquête baa ngay wëy fonds d'appui et de développement de la presse dana yokk ba 30 pour cent li ko dalee at mi ñëw dana jógee ci 1 milliard 400 jëm 1 milliard numérique bu bees bi di Moussa Bokar Thiam moo joxe xibaar wi ni ki démb ci alxamis gi gannaaw ba mu demee woon rek ca groupe de presse immédiat yokk na ci ne nguur gi du yem si fonds yooyu ndax dana taxawal benn système ngir gunge projet wu média yu sérieux yi Euh, mbirum sextape la ñuy tudd ñaari responsable benn Bokk Yaakaar loole ma nga amee Ourossogui ca dëkku maire Moussa Bocar Thiam ma ñu fal bees ministre de la communication euh, ba ak dembale mi ñu fësalul seeni tur soxna si sant Dia moo leen filmé ci anam yu doy waar ndaw si da doon génn ak ñaari leader politique yépp ci ab appel vidéo la filmé ba dembale moom dafa ne woon nag moom ci benn chambre d'hôtel ginnaaw loolu nag mu laaj ba mille euh, lu ko mooy mu tasaare image ndaw si yamu sa ndax dafa ni magam bii di ja juróom benn million kii di dembale bi ñu bañee ñu gis seen vidéo yi di wër ci seen adversaire politique yi euh, ñoom it ñu ni na ba démissionné ci conseil municipal Ourossogui bi euh, bi ñu porté plainte ñu teg leen loxo euh, ba bésu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre la ñu leen placé woon sous mandat de dépôt Euh, nit ki barki démb la ñu leen wan a lekk juge des flagrants délits wu Ndakaaru ndaw si mi ngi juddaatu 1989 sëy na ba tas am ñeenti bant juge bi teg na ci ndoddam ñaari at yu muy tëdd juróom-benni weer yi magam ju jigéen ji itam ñaari weer lay tëdd la ñu di leen toppee la ñu di si toppee magam bu jigéen bi mi ngi yem ak tentative d'extorsion de fonds. Ndongo Diop membre la ca Pastef placé nañu ko en garde à vue ca sûreté urbaine gannaaw ab live gu mu def yëkkati ci ay kàddu yu ñaaw procureur de la république di fàttali rek ne ndongo dafa ne woon sous contrôle judiciaire ah, ci manifestation ya woon weeru mars atum 2021 la ñu ko jàppoon tëj ko ca prison wu Diourbel ah, moom ak yeneen ne nawleem yi toll ci ñaar fukk ak ñett ci ab vidéo gu mu defoon weeru janvier atum 2020 ah, ca la waxee woon rek la tax ñu teg ko loxo ca conseil des ministres àllarba gi weesu njiitu réew mi Macky Sall jëloon na ci ay coppite yu bees Yoro musa Diallo magistrat def nañu ko agent judiciaire de l'État Aymérou Gningue ingénieur en génie du rafinage du pétrole et du pétrochimie def nañu ko njiital conseil d'administration bu holding société des pétroles du Sénégal Papa Ibrahima Faye économiste financier ne woon lu yàggul dara directeur centre régional des œuvres universitaires bu Saint-Louis def nañu directeur général autonome mu wutu fa rek Mamadou Faye ma ñu woo ci yeneen yi te euh, moom Mamadou Faye def nañu ko directeur général société de gestion des infrastructures publiques euh, dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose Abdoulaye Diop cadre commercial doon na directeur général conseil sénégalais des chargeurs mu wutu fa Mamadou Ndione ma ñu woo ci yeneen Mouhamadou Diaité inspecteur des impôts et domaines de classe exceptionnelle wutuna Abdoulaye Bibi Baldé ci poste directeur général société national bu La Poste Chérif Baldé physico chimiste professeur des universités nekk na directeur général centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement di fa wutu professeur euh, Pape Goumbalo ma ñu yóbbu retraite Ahmadou Bamba nekk na rek directeur centre régional des œuvres universitaires sociales bu Saint-Louis Ousseynou Diop directeur centre régional des œuvres universitaires bu Sine Saloum nee na Fatoumata def nañu ko coordonnatrice nationale programme de développement de la microfinance islamique du Sénégal Yelamine Goumbala def nañu ko secrétaire général autorité de régulation des télécommunications et des postes mu di fa wuutu Samba Alassane E, meeru Géejawaay gi ak ñooñam andi nañu ay leeral ci rumeur yooyu wër di wax ni rek dañuy waaja a jaay ancien hôtel de ville bi au Auchan euh, service yu ancien journaliste su des médias bi euh, weddi nañu rek loolu yëpp di wax ni waajaluñu benn procédure ngir jaay espace googule euh, bari na nag ay nit yu leen di saisir ngir xam la xew dëgg waaye nag nee nañu jaayuñu te fasuñu yéene jaay googule patrimoine Euh, benn soxna su yor salon de coiffure la ñuy tudd ci mbirum trafic de drogue rawatina bi ñuy woowee volet euh, Momanta sekk salon wam ngaa nga nekk Yoff Apexi Ah, waaye nag moom Parcelles Assainies la dëkk takk der yi ab xibaar la ñu jot ci kenn ku nga xam ne rek mooy liggéeyandoo ak Anta Seck Libération di xam leen ni quantité gu am solo la jot dugal ko ci salon de coiffure am googule ab takk der infiltré ko def commande fekk nañu fa fanweeri comprimé yu ñu lëmas ci benn t-shirt ah, ba doon ko déglu mu nangu tuuma ya tey leen di xamal ni rek 3500 la daan jaayee drogue bi ab accident moo am ci 75 cas mu bawoo woon Matam jëm Ndakaaru moom mbëkk benn euh, woto woppuya marque Nissan immatriculé KL 54 83 C euh, démb ay boori 5 heures du matin la amoon ci croisement wu Vélingara ci département wu Ranérou euh, fukki nit ak benn ñoo ca jëlee woon ay gaañu gaañu ñeent ñoo ca gënoon a méttile victime yëpp ña nga leen yóbbu woon l'hôpital Magatte Lô mbir mu doy waar moo am ca daaru musti ba nga xam ne ni rek ñi ngi doon dëjël sëriñ Abdourahmane Mbacke Abdou Karim Touré ñeent fukki at ak ñaar am ay soxna ak juróom-ñeenti bant moo fa sàcc ay téléphone portable mu di rek ñetti iPhone 13 benn iPhone 11 Pro Max benn X ñetti marque Samsung ak benn Galaxy A205 ba mu ñibbee këram nag ca la Assainies mu gaawantu dem Colobane ca ëllëg sa ngir jaay leen waaye njaay ma nag mujjul antu ndax élément yu brigade de fa woon euh, doon wër benn euh, réseau ci wile wàll ba su premier octobre la ñu ko jàpp fekk ci moom euh, sept portable ak un million six cent parquet ba àtte na ko ba biral ci moom juróom-benni weer yu muy tëdd ñett ya fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk la ñuy jël ndogal ci mooma Cheikh Yérim Seck moo ko jël soxna lu yàggul dara journaliste bile di Asu Jonn dañu ko agressé ci mbedd ndakaaru yi ni ki dem la woon ci alxemis gi bu nu sukkandikoo ci xibaar yi dañu ko dogale yóbbu saak à meewam nga defoon ay portable am xaalisam ak yeneen i bagage yi yu mu ca defoon joxeeguñu identification ci ña ko def dañu leen toppalaata toppalaatal bépp xibaar gu ci bawowaat ministre auprès du ministre de la justice garde des so chargé de la promotion des droits humains moom Mamadou Saliou Sow ñuy taxawal juróom-ñeenti kaso yu bees ma ngi ko xamle nag ca cérémonie wu fin de formation wu ñaari promotion yu école nationale d' administration pénitentiaire bu Sébikotane nee na loolee nag dana tax rek ñu mën a améliorer dundinu ñi nga xam ne rek ñoo di détenu yi tàggat yaram la ñu koy ndar ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi fii ak ay semaine Aliou Cissé dana publier liste joueurs sénégalais yi mu convoqué ci coupe du monde a